jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production mbokk yi ñu amaan mbégte rek tey ñu andil leen benn information waaye nag dina leen proposer benn kalaaf comme niñ leen ko doon defee comme temps yëpp koor gi dañoo xaw a jàpp ñu ci kalaaf yi kalaaf yi fi joxe woon nag am na combat yoo xamante bi nii taxaw na ci am na ci promoteur combat yoo xamante génne nañ ko taxawal ko jox ko amateur yi kalaaf bi aussi tamit am na yenn ci promoteur yoo xamante bi nii démarché nañ loolu mais dafa am mbër yu ruux daw génn tey nag dinañ leen proposé benn kalaaf boo xamante bi nii dina neex trop mu dox ci diggante Boy dakaar ak ki nga xam ne mooy ndigal Kaw Gourdin bu Dalifor ak ki nga xam mooy Tidiane Faye bu Lamsar yaakaar naa ne maye chance bu dee am ci ñi ma tudd ñëpp Tidiane Faye moo ci maye chance wala ndigal surtout sax Tidiane Faye mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar dinañ wax aussi tamit parce que ñëpp xam na ne Sa wala man boog jot naa information bu wér que ne nekkatul ci dëkk bi jot naa beneen information bu wér boo xam ne aussi tamit Franc nekkatul ci dëkk bi fan la nekk nag dinañ ko wax bu ci kanamee. waaye mbokk noonu la ñuy nuyoo waa réew yëpp ak waa bitim réew di leen balaax di leen balwaax bu baax di wax ne gis ngeen démb ñoo ngi woon ci ndogu yi Alaaji Sa Touba mu baax mi. mu nekk ndogu yu neex ndogu yoo xamante bi ni mondu làmb ñu bëri woon nañ fi macha allah mu am ay cant am ay xew am ay bernde yu neex a neex a neex <clears throat> ñu ko ciy félicité bu baax di ko wax na ko yàlla na ko mën a def ay ati ati ati at yàlla nañ ko ànd ak moom aussi tamit kenn bañ cee wuute mbokk yi di nuyu waa réew yëpp ak waa bitim réew di leen jox seen wàccuwaay ku ci mel ni sama xarit bi Abdou Tall bu xarañ loo moom suma waay la mais nag moom fan yi fii lay jaar fii fii fàtte naa ko sax fii lay jaar ci buntu kër bi Abdou Tall <laughs> fii lay jaar ci buntu kër bi te du dugg ci biir kër gi taal baa lay siyaare bu baax a baax a baax di di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax <clears throat> noonu la ñu nuyoo aussi tamit xalil suñu xarit ba Babacar mu lama borom marché Petersen ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax ku ci mel ni Fadilou Fall doomu ndey petit production Galso 94 doomu ndey Balla Gaye 2 grand ñi ngi lay siyaare bu baax a baax a baax petit production nag mi ngi waajal lu rëy mbokkee yi le 15 juillet arène nationale petit production dafa taxawal combat yu neex combat yoo xamante bi ni mbokk yi ku fa teewul yërëm naa la Siteu bu Ngor rek nga xam ne xale yi dañ koo namm ndaanaan bi bu jógee Ngor Wakaam Yoof Tubaab Jalaaw ñëpp lébu yëpp dañ koy topp Ndakaaru dañ koy dar am yaakaar ci moom boole koog Alioune Sèye Junior nga xamante bi ni nag dafa am lu ko metti xale bu fi mas a ës Alioune Sèye Junior moo la freiné ñu jël ko boole koog Siteu bu Ngor nga xam ne la ko daggee Géejawaay ak Yëmbal ak Kër Masaar ak Buun ak Tiwaawoon Pël ak boobu yëpp dañuy topp Alioune Sèye Junior waaye mbokk yi dañ koo jël jox ko ki nga xam mooy Giza muy combat bu neex buuse nee na adversaire am potagel biir pikin nekkul Giza nekkul Alaaji Mbay nekkul Sakor Balde nekkul Malaw Seras kum doon nag yéen a ko xam xëy na di ngeen ma ko wax moom moo wax loolu nag man waxuma ko moom moo ko wax ba tax na nee na comme combat ak Ziza réveil la rek day am nu muy kii rek mooy lool Ziza aussi tamit jël combat bi teg ci bakkanam parce que nee na buuse comédien nga doo mbër mënoo maa daan. coow li bari nag petit production jaar fa taxawal combat boobu muy combat bu neex buuse mujj pikin dugaat pikin lan lay amaat lam fa jëlee woon dafay amaat victoire wala dafay amaat défaite loolu yàlla xam waaye mbokk tamit bu leen fàtte petit production. dafa toftal huitième combat bi jël ko jox ko Modou Anta sans frontière mbëru reporter yi mbër bi nga xam ne macha allah bu jógee la ko daggee ah arrêt mbaay ba côté boobu yëpp macha allah ñëppay jóg di ko topp ñun reporter yi tamit moom kese la ñuy topp di ko ñaanal yàlla may ko ndam waaye dañ ko booleeg suñu xarit nag Milkouzo nga xam ne waaw frère bu kuul la wax dëgg yàlla moom tamit moom lañ ko booleel duma rek ku man sa morom duma Milk nan la demee rek waaw di ñaanal Modou Anta nag ndam yàlla may ko ndam bu sedd guy guy guy guy macha allah ñoom tamit ni nga koy waajal waaye dafa jël teq jël boole ko ak xale bi nga xam mooy Ngoma boole fa ay combat yu bëree bëri jël rajaxe boole ko ak Boy Grand F loolu petit production moo ko taxawal doomu nday PDG Omar Sow Omar Sow nag mbokk yi dafa def benn sesu noobul seesu noobul bu rafet a rafet a rafet rafet dafa jëw jumaa jumaay Masalikul Jinaan dafa ñëw ci jumaa ji julleendoo ak imaam bi ba pare raam ba ci moom yëkkati cinq cent mille jox ko ne ko à partir de aujourd'hui saa bu weer bi deetee maa yëkkati cinq cent mille fay la mbokk yi loolu macha allah mu nekk ses bu rafet wax dëgg yàlla def katu lu baax yi ba tey ñu ngi koy def Omar Sow yàlla na la yàlla defal jàmm loolu ñun ñëpp nga ko defal imaam bi nga ko defal xaw ma ko de waaye ñun nga ko defal parce que li tax ñun nga ko defal mooy que dañ na yónnent bi bu del si waatoon jamono ci jàkka yi lay wàcc ak ci jumaa yi kon boo mënee dem ba jumaa yi Tuubaa ju mag ji nekk ndakaaru muy Masaalikul Jinaan nga def fa jëf ju rëy jooju ba pare warlal ko ko chaque fin mois kon Omar ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di nga wax ne li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal bu baax a baax mbokk nag dañuy ñëw ci kalaaf bi rek dañuy ñëw ci kalaaf bi directement euh, xam ngeen Boy dakaar mi ngi mujj a bëre ak Ronaldinho loolu Assane Ndiaye moo ko tëggan bu ma juumul mu nekk combat bu neex mu am ndam ci kaw Ronaldinho avant loolu mi ngi mujj a bëreeg caatu ngéwél daan caatu ngéwél macha allah moom tamit lañ leen di proposé parce que tamit moom mi ngi ci treize combats bu ma juumul onze victoire daal wala douze benn défaite benn défaite la daan ak Kaagour nga xam ne mi ngi ci dix-sept combats moom tamit daan ay ndaanaan yu bëree bëri ak ndigal mi nga xam ne presque moom mi ngi ci douze combats sorew seen combat yi sorewul seen grand frère bi leen war a may sens nag moo leen ëpp ay combats Tidiane Faye presque mi ngi ci pili de ay vingt-sept combats yooyu wala jege na ko. wala mu ëppal ko dernier combat Tidiane fay kan la ko bëreel Tidiane Faye combat bu mujj kewel la ko bëreel ah waaw bu ma juumul kewel la mujj a bëreel Tidiane Faye avant kewel mu ngi bëri woon ak ki nga xamante ne mooy Alioune Seye junior daan ko mbokk yi combat yooyu lan ngeen ci wax kalaafu ndaama la de kan moo sut nag laa xamul xalil kalaaf bi daal ku sut laa xamul Tidiane fay Kaaw Gourdin booy dakaar ndigal bu école de lutte Balla Gaye ndigal tamit mu defar bu am solo retour ba ba mu ci jógee ba tey macha allah mi ngi marqué li nga xamante bi nii mooy yoonam macha allah di ci bay waaram mbokk yi nag kalaaf bi bu taxawee képp ku ci génn ku nekk danga war a am benn niveau boo yegg ci làmb ñoom ñii ma la wax ñëpp dañoo ës Kaw Gourdin dafa ës daan na moroomam yëpp ndigal pare dafa ës gis nga ko retouram bi Kaw Gourdin mi fi gën a ës ñoom ñaar bëri na ba temps bi jeex kenn mënul sa moroom dara booy dakaar mii booy yi fi ës yëpp daan na leen combat kaw gourdin yëpp fii ma toog mën naa leen ko wax mais émission bi nag day gudd combat ndigali aussi tamit noonu Tidiane Faye combat mi dina am yu may fàtte booy Dakar premier combat ba dernier combat yëpp mën naa leen ko wax mbokk yi ñii buñ leen boolee bu fekkee ne Tidiane Faye nangu na wala pare na pour may leen sens mbokk yi lii buñ leen boolee day neex ana promoteurs yi ñi fi doon tëgg kalaaf ana ñu yi daal ñu ngi mi doon tëgg kalaaf nan dellusiwaat ñu bay waaru kalaaf ana falu Ndiaye mi fi tëggoon kalaaf TFP nañ dellusiwaat ana Dieye production mi fi tëggoon kalaaf ana Gaston Mbengue mi fi tëggoon kalaaf mais pourquoi pas gars yi nañ ñëw ñu jël kalaaf yi teg ko ci journée yi mu neex lool tey bu doon par exemple bu doon Gaston production ñoo ko jël jëloon ko par exemple le première janvier poule A bi ak poule B bi bëre ñu jóge ci le premier janvier le 5 mars. ñu ñëwaat ki daanan ñaar ñi daanoon daje ñaar ñi daanu daje hmm? ñu jóge la cinq mars kon la 14 mai bi incha allahu rabbi la final bi war a doon bu mënta àgg la 14 mai la trente juillet final bi euh, mu nekk final bi mais day yomb te combat yi mën naa bañ a cher loolu tamit ñu ngi koy demandé Abdoulaye Ndiaye waxuñu ko nag pour force da ngeen ko war a def suñu xalaat rek la ñu joxe des fois da koy wax ñu ne noo kii nangam nangam lii muy wax kenn mënu ko suñu xalaat la làmb waxtaan la waxtaan la quoi dañ koy waxtaanee bu dul Gaston production am na yeneen promoteurs yu fi nekk faalu njaay mi ngi fi Assane Ndiaye mi ngi fi ñoom Jamaïcain ñi ngi fi ñoom Fouta production ñi ngi fi te xale yëpp man nañu kalaaf ñoom Iliman Lo ñuy doog a ñëw ñi ngi fi bari na bari na promoteurs yu fi nekk boo dee lim sax da ngay jox ay momo momo production mi ngi fi Modou Baye Fall nga xam ne macha allah moom ay journée am da koy jox ak xam ba ma sëkk mu nekk journée yu neex taalibe Serigne Saliou bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax pourquoi pas tamit moom mu ñëwaat fël foofu le 17 décembre la mujjoon bam jógee la jógee le 17 décembre ba tey tëggaatul combat moom Modou Baye Fall ñu ngi koy woo tamit moom it mu ñëwaat bu ci manee appuyer mu appuyer si loolu macha allah mu nekk kalaaf bu neex nag kalaaf boo xam ne bu taxawoon moom favori dañ koy jël rek jox ko Tidiane Faye bu ko joxee Tidiane Faye nag beneen bi ci topp xam naa ne peut-être ndigal nga la gars yi jox wala wala man sama favori boobaa Tidiane Faye lay doon yeneen gars yi nag mën nañoo jox ndigal ñi jox Boy Dakar ñi jox Kaw Gourdin comprendre mais nag nekk na kalaaf boo xamante bi ni kalaaf bu neex la bu taxawoon dina baax lool am na beneen kala bu may proposé nag mais loolu xam naa ne suñ beneen émission lay doon mbokk yi la demee di leen ziaraat bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni tamit euh, suñu waajam moo njaay directeur maa ngi koy ziare bu baax di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla macha allah moom tamit moo social la waaye ku ci mel ni xalil euh, kanji production moom tamit dañ koy bëggee xam nga lan moo tax ñuy bëggee kanji production depuis koor gi ba mu commencé ba tey macha allah mi ngi dem ñàgg tubaab jalaawab Grand Yoff fu ne ma ngi fay wër yor otoom ànd ak ku ci mel ne Xaadim Anta Seck sama booy bi macha allah ñuy def social yu am solo da ngay tëdd sa sa néeg ba xaaju guddi ñu andi la biteelu diwlin ak diwlin ni mu seere andi la saaku ceeb ne la Kandji Production la ko jox. te bu koy jox nag da koy jox ñu ko yelloo du ñëw fekk benn Modou Anta bi nga xam ne am na ceeb ak diwlin mu koy jox safewul day dem jox ko ñi nga xamante bi nii kii dalay leer na boo nee ko pëkk pëkk mu jóg nga jox ko ko. wallaay lancim bu toogee ñaan la di nga am li nga bëgg kon Kandji production ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla loolu jar naa wax parce que bu fekkee ne doomu réew mi la nekk ci réew mi nekkoon ci làmb ba nekkatul ci làmb ñëwaat di jàppalewaat waa làmb ba pare di social partout dans le monde nag di ko defal ñëpp dañ koy sant bu baax di ko gërëm parce que man defaluma ko mais nag comme defal na ko ñeneen mën naa ko wax bu ma ko defalan di nan ne waaw nangam nangam Sa maa ngi koy dégg benn interview am Fadam mu ne mi ngi sant Kandji production Saaka Joor fan la ne France la nekk xaw ma ndax Italie wala États-Unis xaw ma ban réew la nekk maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom suma waay la dañuy déggante lu bëri maa ngi ko dégg interview ci mu ne Kandji production ba léegi daf koy woo di ko dugalal xaalis te bu ko neexan nee na Saaka Joor tukki na nekkatu fi mais dafa xam ne feebar na te ci làmb njabootu làmb la bokkoon kon wax dëgg yàlla Kandji côté boobu ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di la gërëm parce que tamit àdduna nii kese la wax dëgg yàlla ñi am bu buñ téyee seen loxo wallaay baadoole yi dañuy far dee rek wala gor yi dañuy far dee rek parce que koo gis am na ñu am am na ñu amul suñu borom moo bindee noonu ba pare wutale jëf yi kon ñu ngi la ciy béggee bu baax a baax a baax di la jox sa wàccu waaye di la wax ne la li nga man ren yàlla na ko man déwén man ko lu ko ëpp bu baaxa baax mbokk yi bala maa ñëw ci Sa ak euh, ki nga xam ne mooy Franc ba tey la ma waxoon rek laay waxaat muy promoteur bu mu man di doon suñ làmb ji ñu ñoo ko moomal suñu bopp kenn moomu ko sport national bi ñu ci nekk ñoo ko moom ku ci nekkul moomoo ko ku nekk ci football moomoo làmb ji mën ngaa bëgg làmb nag mais lii la football jaral dëgg làmb du ko jaral basket bi noonu politique bi noonu mbalax bi noonu donte ñun ñëpp nag ñoo bokk Sénégal suñu sport national ñoo ko bokk mais làmb dafa am ñu ko moom am ñu ko maîtriser football dafa am ñu ko moom am ñu ko maîtriser la ma waxan ca laay dellusiwaat nañ bàyyi jël champion bu toll ni rëg-rëg ak Sa Thiès Balla Gaye ak seen Sène yóbbu leen ci ay plateau télévision jël fa teg ñoo xamante bi nii ci politique la ñuy wax jël fa teg fa ñoo xamante ci football la ñuy wax jël fa teg fa ñoo xamante bi nii ci mbalax la ñuy wax ñuy posé question yu leen neex mbër yi loolu nañ koy nañ koy invité loolu baaxul loolu nañ koy moytu bu baax a baax parce que mun na yàq làmb li tax mun na yàq làmb tey boo ñëwee posé Balla Gaye benn question ne ko da war a taxaw devant le public wax ne màgget nga fin de carrière nga nekk mais lan moo tax ngay wax loolu nit ki mënoo koo gën a xam boppam Balla Gaye gënoo koo xam màttu lalam bu nekkee fin de carrière xam na ko bu ko nekkul xam na ko lim def ci làmb pour mbër defati ko day jafe loolu chaque jour ñu koy wax li tax ñu koy wax nag da koo def ba mu duggee ci làmb 2005 ba 2022 mu nekk roi des arènes ci xale ay moromam mu njëkk ceex xëccoo roi des arènes jël ko esagul de da koo jël ba pare continuer ñi fi manoon mu tegle leen daan ba pare nekkaat ak ay moromam ci làmb bu bëree mu neex bu feccee mu neex comme mbëri yëpp nag mais nag wax dëgg yàlla loolu yàlla jagleel na ko kon tey boo mënee ñëw teg ko ci plateau di ko posé question yoo xamante bi nii tey bu fa Babacar les arènes nekkoon du ko posé bu fa Modou Mbaye nekkoon du ko posé Malick Thiandoum moomu toog ci plateau bi posé ko ko mais TFM la nan jël Malick Thiandoum jox ko émission bi jël Lamine Samba jox ko émission bi ñetti reporteru làmb ñëw mën naa ci bañ a bokk donte Gaston production laa bokk ñu jël ñeenti reporteru làmb teg leen ci siège yi ñu posé mbëri ay question di xamante na ñoo mbëri am na question yoo xamante bi nii bal la foo ko wax day tàkk te wooy wuy dëpp gaal kenn du ko woy ci tefes jekk saa yi rek ne bëreet na Eumeu seen bu neexoon bu neexan wax la li xew Pikine yaa ngi ni jubóo ak booy mais ban problème la Eumeu Sène am ak booy amuñu problème amuñu benn problème wala man gisuma ko de wala bu amee dafa nëbbu te ñun li ñuy yëg bari na de li ñuy yëg bari na trop du nettali nag waaye des fois nag lu ñu yëg mu siiw des fois dañuy xaw a jaar ci mbooy gi am nañ def comprendre nga. problème bañ fay wax entre Modou Lo Boy Niang Modou Lo Ama Baldé lool ci ay wax la yem ci ay wax la yem mooy ka dégg ngeen Birasène li mu joxe ñun du nekk Gaston Production kaneen ni dañuy sukkandiku rek ci li président CNG wax nee na Ama Balde day bëri ak Gris Bordeaux bu bëree Gris Bordeaux ba pare ñëw bëri ak Modou Lo loolu la waa CNG wax leneen lu ci soppeeku nag ñu xam ne lii la lu ci soppeekul ñu jàpp lool. parce que nekk Gaston Production du ñu tax ñuy wax lu ñu leerul wala ñuy wax di farfaral wala nangam Gaston Production nag lañ gëm ndax macha allah saabu bu weer bi dee dañuy fay xaalis bu mat sëkk jël xaalis yëkkati du ñu may bàyyi ñoo liggéey bi te contrôlé wu ñu ci dara ñuy ñaanal per gasoo aussi tamit wax dëgg yàlla na ko mondu làmb ñaanal yitte woo na ko lool yitte woo na ko parce que moo daanta tey bu te dee feebar na ko ñëpp ñaanal mais père na ko ñëpp ñaanal feebar nag ñëpp lay dal ah. man mii des fois fan yi damaa xawoon a jagadi comprendre nga noonu lay dalee ñëpp mais ñu koy ñaanal parce que moom wax dëgg yàlla mbër bu fi am kër wala bari na mbër yu fi am kër tey am oto takk fi soxna yu baax seen kër laa la wax ci xaalisu Gaston Mbengue lañ ko tabaxee mais dañ koo ñàq nag. comprendre nga kon nañ ñaanal Père Gaston bu baax a baax yitte woonu ko kenn ku nekk fa nga toog di nga di ma seetaan salaatu goo man faatee goo man alxuraan boo man xasidee goo man loo man nga ñaanal ko ci yàlla na ko yàlla may wér ci barke Seydina Mohamed ci barket alxemes ji ñu nekk ci barke tey bisu tey bi nga xam mooy bisu laylatu xadar ñu ngi la ci ñaanal père yàlla na la ci yàlla defal wér defal la ci gudd fan defal la ci wér gi yaram man bëgg naa bokkaat ak yow terrain bi parce que dama ñëwoon sa kër ba may commencé ñu am lu ñu waxante. loolu nag fàttewuma ko loolu chaque jour damay bëgg yàlla suñu borom suturaal ma suturaal la bañ bokkaat terrain bi nga xalaat la ma la waxoon nga xalaat li ma la waxoon tamit mu nekk lu neex beneen côté bi dama ci insisté ba tey mooy ko yooyu nañ ko bàyyi gisoon nañ face to bi amoon ci euh, Walfadjri ñan ñoo fa nekkoon du ma tudd tur du jum de ba tey tudd ma turu kenn lañ fa doon wax ay Sa Thiès ak Reug Reug ce que yoon la da nga koy poser benn question boo xam ne waxuma la mbëri sax mais ñu toog ci plateau bi dañuy tiit dañuy xam ne yow mii nii ku agressif nga da ngay xam ne yow mii nii bëggoo sportu làmb bii sportu làmb bëggoo ko tey bu fekkee ne spor nga bëgg beneen nga bëgg beneen discipline u sport nga bëgg mais pas làmb day am yenn question yoo xam ne catastrophe la kenn du ko wax. te tey bu fekkee ne dangaa dékk micro keneen ku nekk ci làmb duñ ko laaj mbëri te xamal nañ mbëri ëpp loolu fuuf nga dellu siwaat ci Balla Gaye ak Eumeu di leen waxal loo xamante bi ni weñ bu ca tag dee ñooñu ay kilifa lañ ci làmb dañoo mat ci làmb dañoo def lu nekk ci làmb dëkk ci dëkk bi am fi ay kër ëpp la baat fuuf loo amut donte yow ndaanaan nga ma turu kenn mais wax bi moom nañ ko dégg parce que ñun làmb ku ko laal dañuy laal làmb la ñu bëgg nañuy xool loolu bu baax moo xam muy lig ni ko laay ak Pa Abdou Fall ak Fallou Ndiaye ak Gaston production ak Assane Ndiaye ak Jamaïque comme si man di doon bu ñuy invité ti mbër yi yow yaa moom marchandise bi di ko yóbbu yaa moom Balla Gaye yaa moom Modou Lo boo leen di yóbbu fenn nee leen eh émission lamb laa bëgg ñu yóbbu leen bu dee TFM nañ ko jox Lamine Samba Malick Thiandoum presse bi ñëw ñu toog. bu question jotee ñu posé bu question amut Malick Thiandoum ak Lamine Samba ñu dirigé ko ba mu jeex bu dee deux heures Baye Balla nga fa Modou Mbaye nga fa. bu fekkee ne Sen TV Max Mbargaan mi ngi fa raay ba mi ngi fa bu dee ITV Mamadou Diouf nga fa Père Ngagne Diagne nga fa mais nañ def loolu. ñu jéem a jàmmal làmb ñi ci bokk ñu génne leen ci ban set parce que bu dul loolu problème dina am ci làmb ci te ñoo koy andi dinañ fi laaj mbër question laa la wax après ñu am ci problème mbokk yi foofu laay wàccee sama kàddu rek. di ñëw aussi tamit ci benn information que Franc génn na réew mi dellu na fële France wax dëgg yàlla delluwaat ca liggéey ba ginnaaw bi ñu ko jëlee interview Khalil fii ci Parcelles Assainies fii ci écurie Jàmbaar Wrestling Academy lañ ko jëlee woon mu def ay entraînement yu am solo dinañ leen ko tegal ci Gaston Production ba mu fa jógee aussi tamit dem na fële ca France waajali kombaam ak ki nga xam mooy Forza muy le 14 mai 2023 fële ca. arène nationale bu Pikine Gaston production moo taxawal combat boobu noonu kon France jàpp leen ne France jàpp leen ne nekkatul ci réew mi dem na fële ca France waajali moom nag buy dem kenn du ko yëg mais dëkk bi nag ah macha allah am na ñu fi dëkk de am na ñu fi dëkk ñoo xamante bi moom dara du leen ump champion ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la jox sa waay di la ñaanal nga. entraîné ak jàmm dellu si ci réew mi ak jàmm incha allahu rabbi nga jàkkaarloog Forza que le maire gagne yaakaar naa ne foofu lañu ci mën a yem waaye dañuy dégg dañuy dikk ci beneen mbër boo xam ne 5 mars la fi bëri woon combat bu rëy ba moom Sa Thiès muy combat bu neex wax dëgg yàlla di combat boo xamante ne chaque jour damay féliciter Sa damay féliciter Reug Reug wax dëgg yàlla waaye pour l'instant dañuy dañuy dañuy dañuy gën a féliciter Sa moom moo amee victoire bi di gën a encourager Reug ndax li tax ñuy def loolu mooy que ñooy seeni moroom yi nga xamante bi nii ñoo topp ci Balla Gaye 2 ak Modou wax dëgg yàlla ñu ñëw arène nationale ñu jaay ko billet 5000 billet bi gën a cher 5000 bi gën a yomb boog 5000 stade ba fees dell kon dañ leen di féliciter kon dañuy xam ne poids lourds yi def leen attention da ngeen di xam ne Sa Thiès fa ngeen nekk mën na faa nekk de parce que am na poids lourds yi fi bëree bëreew ñu billet 5000 de te stade bi feesut ah bàyyi leen ci xel. am na poids lourd yu fi bëree bëreewuñu ñu billet 5000 te stade bi feesul te Sa Thiès billet 5000 la bëre tëj stade bi moom ak rëg-rëg ku ne duy sa côté ba mu fees dellu ñu def ko làmbu xale kon poids lourd yi xam ne ne lu ngeen am ci mbooloo Sa am na loolu ci mbooloo lu ngeen am ci doole am na loolu ci doole lu ngeen am ci fit am na ko ba pare am rapidité nag te du yàqu forme moom li tax ma wax la loolu Sa Thiès benn combat laa mas a gis forme boo xamante bi nii d'accorduma ci parce que ñun chaque jour làmb moom liñ ci war a wax dañ ko ciy wax rek bu fekkee ne yow maanaam sportif dëgg nga déggul ko ci nopp bu sell bi déglu ko ci xel mu dal di nga xam ne kii lii muy wax dëgg la wala kii lii muy wax xalaatam la war naa changé waruma changé yàllaa xam muy combat ak Moussa foofu Sa Thiès forme bi mu indi man forme boobu moom d'accordu ma ci moom forme bi macha allah bëri na lool tellement biir bi wàcc form boobu kese laa mas a gis ci forme Sa Thiès d'accordu ma ci mais première combat booy Diouf Bombardier Junior ba. dernier combat moom ak rëg-rëg forme yi extraordinaire lay andi at athlète dëgg amut looy critiquer Sa Thiès lenn rek ngay wax dafa ëppal te ëppal boobu ci la daan ñëpp kum daan ku nekk ci ëppal bi la la daan moom tamit ma nga fële ca France ah xaw ma nag dafa entraîné ji xaw ma daa dem noppalu ji xaw ma daa dem feete ji victoire am waaye xam naa ne moom victoire ba ba mu ca génnee na ko parce que moom fee lay nekk ci koñ bi di sànnanteeg di football ak moog booy yi mooy lool waaye moom tamit ñu leen di xamal ne leen ma ngi fële ca France waaye ak lu mu fa mën di wuti jàppale na moom Saal moom fu mu nekk na fa dee jéem a dem. loolu moom xamal naa ko bëgg na entraînement lool Saal fu mu mën di nekk biir France Sa Thiès dina jéem a dem foofu kon mbokk yi information yooyu lañ leen andiloon Franc mi ngi France. Forza aussi tamit euh, Franc mi ngi France Sa Thiès aussi tamit mi ngi France ñoom ñaar ñëpp incha allah rabbi xam naa ne yàggatul dara dinañ ñibbisi fii nga xamante bi nii moo ci réewum Sénégal mbokk di leen siyaaraat bu baax di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax di wax ne koor gi ñu dugg yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génne ci ak alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom mën na ko yàlla nañu ko defalaat bu baax a baax a baax baax di leen di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sama waa dëkk nag waaw di la ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram waa Lambaay Bawol waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène waa Ndioufène waa Mbadiane waa ceeb ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Mbuso di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu aussi tamit fi ma nekkoon daara wax dëgg yàlla ndax ku la xamal benn araf rek sa buur la loolu arab ko wax man xal la ma fan fa huwa maalikun di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax muy waa Saalum waa dëkkub sëriñ Aliou Diouf Lambaye di nuyu sama sëriñ sëriñ Assane Diouf Lambaye mu sëriñ Aliou Diouf Lambaye di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di nuyu mbooleem xalifab sëriñ Aliou Diouf Lambaye ku ci mel ni sëriñ Thierno Faly Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak njabootu sëriñ Modou Diouf Lambaye gi yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di feddaliwaat suñu kóllëre di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax a baax a baax mbokk di leen jox di daje rek ba beneen yoon di leen wax ne leen lu ci jub rek yàlla suñu boroom la lu ci dëng rek ci gàtt xam-xam la di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp xaleel jërëjëf. bu sifflé luñu moom dem suñu. jël franc day pression ci man. jël franc de pression ci Forza. ah barki maam Cheikh Ibrahima nga combat.